comment la femme daa procéder c'est très simple damay kër yëpp am na seetu ci néeg bi mhm. am na seetu ci toilette bon Dakar boobu parce que je parle sous sous réserve oui. même soo amul seetu soo taxaw ci seetu bi c'est très simple tu te da nga tu te excusez-moi mhm. mhm. ba fii simmi soo simmee nga taxaw sa kanam seetu nga def nii sa loxo xool say ween xam seetu da nga koy gis. Mhm. nga xool ko bu baax de face ndax gënul yokk ndax der soppeekuwul. Mhm. ndax amul fu noox. ce qu'on appelle les modifications cutanées. ok ou mu fa am mhm. soo xoolee wenn lu li nga yàgg xool tunkara bi su sikkee dañ ko xam. oui à force de regarder seulement rek bi su amee rek ah bokkul sama weer. soo defee ni de face après nga def de profil. parce que yoon lii ta cee bokk. Mhm. nga xool côté yi tamit. nga xool côté bii sa ween xool ndax amul dara lu si modifié parce que ça te permet de voir tout ça et tu de côté. Mhm. tu fais comme ça aussi ça te de voir ici aussi de l'autre côté. Mhm. là tu vas t'habituer à tes seins. c'est vrai. tu vas t'y à la longue à la longue bis boo ñëwee sax. soo amee benn tibb tibb na sa non oh, euh, monsieur monsieur Kaay Kaay Kaay. y a un truc qui va pas. amul dara ngeen ko am na dara. parce que lii lu ma yàgg gis melul nii et c'est légitime. sa jëkkër sax xanaa su xëyee chaque jour mi génn su li nga xool kanam mi ne ko. Hmm. lii dafa takk. parce que ton mari tu l'aimes. maintenant pour pal la palpation. la palpation les gens pensent qu'il faut écarter les doigts non il faut les fermer. ok dañ koy tëj ah. dañuy def nii defoo fa dara. nii def nii man de sama yoon fa dara. ok. On ferme. Avec la paume des mains. Mm-hmm. bien fermés, bien regroupés. Regroupés. C'est bien dañ koy tas en quatre cadrans. mais comme montre rek. Mm-hmm. yomb na cadran sax day sori peut-être mën nañu bañ a jàng ndax loolu tubaab la. ñeenti fu nga jaar doo fa jaaraat boobu. te nga fexe ba wër ween bi yépp soo koy def da ngay gis benn loxo nii. Mm-hmm. nga ci kaw pour que ween bi mu gën a nekk en évidence. parce que ma defee nii c' est pas la même chose. oui su ma defee nii c' est pas la même chose. Mhm. donc je mets en évidence le sein. amul nii amul yàkkamte ma dajale samay baaraam ma écrasé ween bi si grille costale bi écraser laa wax grille costale mooy yax yi nekk si biir nga bës ko ba mu ba nga yëg ni moo ngi làmb yax yi. fermé nga tourner say baaraam nii xool ndax d'abord ndax dajoo dara. su ma jigee fii je viens comme ça doucement amul def nii jaar fii wàcc fii def nii parce que donj la. waaw su ma defee nii rek peut-être wàcc na fii. mu déplacé wu. ma def nii mu ñëw fii moo tax duma ko may fu muy fu mu may rëccee. ok su ma defee nii def ndànk-ndànk ndànk-ndànk ndànk-ndànk ndànk-ndànk ndànk-ndànk ba ba daj ween bi ba daj ko c'est c'est des gestes simples. non invasifs mais qui sauve la vie. c'est important merci beaucoup. c'est pas encore fini. ah <laughs> soo paree nga bës cus bi ndax cus bi si amee deret. wala leneen est-ce que le mari ne <laughs> nga bës cus bi. parce que un simple écoulement peut être signe évocateur d'un cancer surtout s'il est sanglant ou sanguinolent. nga bës cus bi ndax amul dara lu ci génn ndax cus deret waru ciy génn. Mhm. soo nàmpal warul am dara. soo paree nga lem say doigts en dos de cuillère dos de comme kudd nii nga ñëw si pokotaan bi pokotaan bi laa wax pare guñ ba léegi de nga def ni en dos de cuillère mu dugg si pokotaan bi xool nga raser ko xool ndax amul benn càkkaar ndax càkkaar rek mën na joxe cancer. Hmm. mën na mën na nekk signe cancer autant pour moi. Okay. je me soo defee loolu nag tu fais pour l'autre sein après chaque cycle là tu es au moins comportement bi réglé nga ko réglé nga dépistage bi mooy réglé nga presque quatre-vingt pour cent yi cela ne veut pas dire que nag hmm. doo am cancer mais tu da nga ko diagnostiqué précocement te da nga si docteur dañ nañ la opéré te da nga si dund doo am benn problème est-ce que boule boo fa daj rek cancer la déedéet merci c'est la pertinence de la question mm-hmm, mm-hmm. on t'a dit que boule yi si ëpp sax du cancer waaye boule boo daj demal hôpital demal hôpital moo gën a wóor te nag moytu leen ñi leen di wax ni du dara dara la kay ñoo ñëw si benn ku mel docteur Diarra non da ngaa ragal te docteur Diarra nee na ma foog nga saytu ko ba mu leer. ñetti mbir ñoo koy tënk. examen bi échographe wala mammo bi cytologie wala biopsie ce qu'on appelle ce trépied. Hmm. ñett la ñuy dajale pour effectivement soxna si amoo dara. gis naa jigéen bu ñëw ñu ne ko soow moo dajaloo sa ween yàggul sax une jeune fille mu ñëw defal ko biopsie fekk cancer. Hmm. donc il faut toujours éviter le discours scénarien. c'est toujours quelque chose. jusqu'à jusqu'à la du contraire. il toujours aller à l'hôpital dégg ngeen geste yi nga xam ne ça sauver des vies. Mhm. alors monsieur Youm très rapidement parce que malheureusement temps bi jeex mhm. éducation année scolaire bi. Mhm.